jafe comme Babacar docteur Babacar Niang duñ ko tudd violence bi nag ba appréciation nga def violence fii c'est l'arme du faible gis nga El Malick Malick Malick Alaaji Malick Gakou dañ ko ci gaañ sax l'arme du faible l'arme des faibles li xew Koungheul li xew Dakar liñ commencé gis ni doy na wax am loo foo dugg boo mooy fa moom loo foo dugg ba kenn kenn nuyuwu la nii rek nga mën a def ci ñu pour ñu tudd la mais ñu def violence ñoom moo leen dese pour ñu tudd la waaw. comprendre nga parce que pour ñu tuddalee moo ñuy jóg ñu ne tel pétrole bi bu mag ki bu Sonko ne nii lay def ñoom bu ñëwee dañ def lu ko gën a baax bu ñu waxoon ne tey or bi nekk euh, Sabodala ñoom bu ñu ñëwoon nii lañ koy def bu opposition da ngay am plan. nga hmm. proposer à la population quelque chose. mais amuloo dara loo ko proposer. te en plus. Euh, waaw pour que ñu gis ngi ngi jégalu si suñu internaute yi ah. docteur Babacar Niakh xam naa ne comme mooy le le serviteur du peuple. mooy waral euh, ñi koy ñi koy woo. waaw ñi ngi nekk ci euh, côté ci ci violence bi nekk ci Dakar. waaw l'arme du faible en tout cas ministre la justice génn boo demee bay kenn xoolatu la <laughs> kenn kenn la il ku daanu ci géej bëgg a noyyi nooy def xam nga noyyi. boo mhm. daanu ci géej xam waaw noonu la <laughs> foofu la ñu toll. c'est les armes de euh, c'est euh, la détresse xam nga détresse. oui bu la dara deseetul. jàppoon nañ ne nag violence du am ci réew mi nag. jàppoon nañ ko rawatina ci mel ni campagne ko Sonko. am na ñoo xam ne dañoo am antécédent de violence. oui. antécédent de violence. waaw mu nañ loolu dana Tamba bi passé kan moo fa doon saaga. campagne bi avant campagne bi sax. oui avant campagne bi moom foo doon saaga population bi. waaw am na ñu doon ñu doon ñu doon tekku ne de. am na ku jël pistolet ma sa tiire ci nit. alors de procès moo ko wax na ci moo tax nga nekkal boo xam nga antécédent ñun en médecine wax ne foo jógee bu sa papa amee jabet am jabet bu sa papa amee affaire cardiaque gisoo médecine bu ñu lay consulter li ñu lay jëkk laaj mooy euh, fi nga soxla ko yan feebar la ñu am. waaw léegi léegi lan moo tax nga ne. Euh, opposition amul ci réewum Sénégal. ah proposé ñu dara. proposé wu ñu dara. opposition da ngay proposé dara ñu koy proposé nañ dara. lan la ñu proposé ah Barthélémy Dias nee na su ñu amee majorité ñu bloqué lu bëri ci réew. waaw ah, bloqué ak ah, ñu proposé. ñu bloqué waaw parce que ñoom seen objectif léegi mooy génn nit. <laughs> bloqué Sonko mooy seen objectif. non non alors que ñun population bi ñu nar a. ñu loolu programme la ah. ñu ngi bëgg nga ne leen mburu bi Sonko dana ko gën a wàññi. jàng bii ñuy am problème tey di fay trente mille pour dem lycée dana ko dindi loolu mooy opposition wala politicien. Hmm. mais koo ne man de kii dinaa ko so toroxal kii dinaa ko sonnal. micro bi way kii dinaa ko sonnal kii kii mooy sama objectif daaneel ko rek mooy sama problème mu bañ am assemblée rek mooy sa problème. mais loolu du loolu du opposition. du du opposition. du mais yaa ngi ne opposition am nu amul ci réew mi waaye Amadou Ba mu ngi génn nit ñaa ngi koy yooxoo <laughs> sax damay yaa ne ma meeting. waaw non damay laaj visite visite visite de proximité visite de proximité. ñi koy yooxoo ñi koy yooxoo ñi ngay tooñ. internet yow da nga may yóbbu fii. ñi koy ñi koy yooxoo. naa la sànq kan moo fi def meeting bi am ay nit. Amadou Ba léegi dama waaye dañ ko doon yóbbu. Macky Sall dañ leen doon yóbbu. Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi def ay. dañ leen doon yóbbu. Amadou Ba dañ ñu ko doon yóbbu ci benn kan moo doon saaga euh, la population à Tamba. ku doon saaga la population bu mu bu mu leen saaga. waaw waaw am na moom mooy tëdd li sàmm sa kàddu. <laughs> tëdd li sàmm sa kàddu dana présenter ses excuses. ñu dem si leneen réew mi da am ah. opposition li ma la wax. est-ce que ngay am projet. mais yéen mais dafa daan est-ce que Ousmane Sonko amul projet mais ku ne la bu ma damay dem élection pour bloquer kii. waaw rek. waaw loolu loolu kooku lu may kooku lu may defal kooku est-ce que dina tax garab yi gën a wàññeeku. est-ce que dina tax médecine bi gratuit ok li ma bëggoon dégg ñu ne woy Sonko day waxul dara ci médecine gratuite bi man dina man mi nekk man mi ba bëgg a def opposition dinaa ko def. Mm-hmm. ku mel ni Amadou Ba xam nga loolu la mën a wax surtout c'est les milliardaires. waaw ah milliardaire la de. man li ma ci jaaxal mooy bu ñu tuddee milliard benn mi am na benn benn compte bu am milliard rek. ñëpp xalaat ñëpp euh, man xaw ma ko ñëpp xalaat xalaat Amadou Ba. comme yi moom la xalaat gars yi de bu ñu wax ñu ne est-ce Ba moo ko moom. président ñoo àndoon Barbaat de. en fan la. ñu ngi tooñ jàmbur de. est la Barbaat xam fan la xaw ma ko de. voilà benn dëkk la boo xam ne xaalis bu la nekk dugal foofu kenn du la laaj fu mu jógee. yi ñu ne mi milliard ci benn compte amul ndax Amadou Ba ñu dem foofu Abdoul nekk. <laughs> déglu ma rek est-ce que yaa ngi déglu ma. Abdoul Mbaye ancien ministre. ma lay wax. waaw ah, foo xam ne dëkk boo xam ne xaalis bu la nga dugal foofu fu mu mën a jógee nga dugal foofu kenn du la laaj fu mu jógee. kan moo fa demoon Macky Sall moo fa demoon en visite officielle àndax Amadou Ba. Ah. ah ni ko waa ji wax tey. kii dugg ci baar doo mën a wax ne du ma naan sàngara <laughs> ku dem ba fi ñuy denc xaalis bu lewul bi en visite officielle. te te Macky Sall Amadou Ba ñoo fa dem. <laughs> fii di gis nañ fii Covid 19 ñëw ñu tibb 1000 milliards. <laughs> tibb <laughs> tibb mille milliards ku nekk mille moo tax ma ne mille sept cent milliards dette bi man jaaxaluma parce ku mën a jël mille milliards di ko lekk fekk ay nit di dee xaalis bu ñu defoon pour sauver ay nit. nga di ko lekk nga mel lu dëmm di lekk di naan deretu nit ñi kooku bu ñu euh, am na ñu nañu compte cent mille milliards euh, day am am na gëm naa ko de. gëmu ko de. gëm naa ko ne mille milliards mille sept cent milliards dem na. <laughs> dans ce pays scandale li ma de xaw ma nu ñuy mën a waxee euh, euh, affaire scandale. xaalis dafa bëri doole xaalis dafa bëri doole. mais amuñ benn yërmande ci askan bi. na ko ma wax ne man corruption. ah ma wax ne je pas corrompu. mais ça dépend de fan la toll. <laughs> yaa ngi dégg wax boobu. waaw <laughs> ñu ne amul kenn ku mën a àddina ne man kenn du ma corrompre. waa ji ne corrompre bi ñu lay proposé ça dépend na naka la toll. d'accord est-ce que <laughs> lii dinaa la ko laaj dañ ci dañuy ñëw ci beneen point bi mooy euh, ndax Macky Sall def na fi active yu tax ñi mën ko juger haute haute trahison. loxo loxo day weex. loxo day weex. waaw. waaw cest à bëgg a wax foofu. am na loxo yu xonq yu bari. loxo yu xonq yu bari. bul sukkandiku ci waxu Fadel Keita waxu non non man maa ko gisal sama bopp man ah, man. de man deret laay fay ma damaa doon bal yi ñu doon dóor maa leen doon faj de. bal ñu doon dóor yaa leen doon faj. <laughs> waaw waaw ci ci manifestation gis naa ay balu fetal mooy mu doon dugg ci nit ñi balu fetal <laughs> wala wala lacrymogène yi ñu doon naaj. balu fetal balu fetal ñu taal ambulance di leen secourir ñu tere ñu. militaire militaire xam nga xale yi ngor gi ni ñuy def dañu mujj jël gaal dem dem làqu ji ci île de Ngor bi heureusement militaire li ma la waxoon militaire yi dafa amoon ñaari boor heureusement dafa amoon militaire yu nekkoon foofu xam naa ñu bokk ci boor bu baax ñoon ñoo leen ñoo leen teral daal leen kii ñun ñu jël gaal dem yoof ñu andil ñu malaat yoof xam nga yoof yoof xam naa ko baax a baax xam nga île Ngor way xam naa leen bi xale ngor ñu leen fetal waaw ah, ñu tere ñun ñu ñëw secourir leen xam nga ambulance kenn moom ko tere normalement mais dañu tere du ngeen fi dugg bëgg rey xale yi xale yi jël gaal daw dem ci île de Ngor bi île de Ngor bi heureusement ñu fekk waaye militaire waaye militaire yu baax <laughs> militaire defal leen ay perfusion ñu di commencé xool ñu leen di kii ñu téléphone booy ñu leen am na gaal bu leen di jël see ah, gaal bi leen di prochain blessé daf leen di jël yóbbu leen yoof ñun sunu ambulance yi dem Yoff ñu teer ci plage Yoff leen soog a mën a secourir. micro bi woy ah. <laughs> day wax woowu photo yaa ngi nii photo deret yi ma yor dama ko daan ci internet sax ñu ne ma waa Facebook ne ma sa inter image ya moo droit wane ko. image yoo xam ne man ci war a dindi perte am sens. loolu mu ngi xewoon ci événement ma Mbaye Niang wala euh, dossier Adji Sarr. depuis 2021. depuis 2021 da ngeen fàtte fetal yi. non wax ne moo dugg seen. fàttali ko loolu. quarante nangam milliards ba ma wax ñu na. mbokk ñaŋ ba ma fontoo yaa ma gën bi beneen bi mooy. yaa bi beneen bi mooy. yaa ngi dafay utiliser wu ñu ko. procureur Aliou France ba léegi. non xañ na dossier union européenne ñoo doon entraîné gars yi fii sax si yoonu jas bi non. militaire ak soldat gendarme sénégal yi nekkoon ak Moussa. fii lañ leen doon entraîné àllu kii àllu kii boobu. àllu jërëjëf doom jërëjëf doomu doomu jàmbur yi fetal ba mu dee. yow boo ko gisee quarante et un milliards dugg nga gis ñu dindi fi Moussa Moussa naka Moussa Fall. waaw général Moussa Fall. am nga preuve formel yoo xam ne. léegi dama dafa amoon euh, ancien procureur de la République ancien procureur de la CREI Aliou Ndao maa ngi koy nuyu passage nekk na candidat ci liste bi. nee na mosoon na wax na déposé nañ une plainte contre Macky Sall à la CPI. Mm-hmm. tubaab tubaab bi tam waxoon na ko. pour pénal international. ngeen traduit fi Macky tubaab bi waxoon ko. avocat tubaab bi. waaw waxoon na ko nu mu tudd sax. Juan Branco Juan Branco wax na ko def na ko te dossier baa ngi. dossier Juan Branco chargé chargé Macky Sall dis na de. du ma Sénégal yu bëri la chargé. ak la l' ancien ministre de l' intérieur. ñi lay wax ne opposant yi yëpp daf leen daf leen chargé. <laughs> ñoo ñëpp dañ nekk ci liste yi dafa bari de gars yi ci liste yi non dossier dossier yi bëri nañ am nañu liste Sénégal bu ñu dindee Amnesty bi am na liste boo xam ne ñoo xam ne dañ na naruñu am jàmm mais est-ce que c'est pas trop boo déggee euh, CPI am na liste bu fa nekk boo xam ne est-ce que est-ce que est-ce que loolu réyul sa ancien président de la République nga koy traduit devant la Cour pénale internationale est-ce que loolu réyul Hitler luñ ko def damay laajte rek Hitler woon président kan Hitler Führer Hitler Hitler Macky Sall est comparé par Hilaire <laughs> non non docteur Babacar Niang war war war war nañu waxal mais loolu loolu yéen ngeen xam ne Macky Sall man loolu dama ne man loolu c'est pas cohérent daanaka nga mën ko traduire devant la cour pénale internationale pare nga bàyyi mu nekk tête liste. peut-être peut-être dina traduire boppam man defe naa dina traduire boppam. dina traduire boppam Hilaire kan moo ko kan moo Hitler kan moo ko traduire xale yi tontu leen ma les jeune la. xaw ma ko xoolal ci internet bi kan moo man de xaw ma xaw ma ko ko traduire. moo traduire boppam. il a disparu. ne may. ne may kenn gisatu ko. dafa xaru. <laughs> moo tra moo boo déglu boo déglu motif bi motifu euh, Macky Sall mu ngi wax ne woy euh, réew mi dafa amatoon jàmm moo tax. mu dugal fi na si am ñu antoon ànduñ ci. Mhm. terroriste bëri. Euh, euh, voilà terroriste bëri. bëri nañ Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall nekkoon ministre de la justice nee na Macky Sall mënoon utiliser l' article cinquante de la constitution. Mhm. pour pour pour téye pouvoir bi. ndax ñu àndatoon loolu lañ bëggoon. mais mais ci ban dëkk. Sénégal bul fa fàtte yàgg nañu xeex de. yàgg nañu xeex de. 1940 defe naa euh, De Gaulle dóor na ko ay bal de 40 bi ñu am 40 fii ci biir Dakar. Hmm? Senghor door na fi ay bal taxul Sénégal yaa ngi nii avec leur dignité dañu expérience su euh, bañkat ci histoire yooyu xam naa yéen fekkewu leen dëggool ma non non ma fekk ko. voilà xëy na peut-être bi tey fekkee na ko Mansour. tiré na ay bal ci biir Sénégal fii Dakar. oui. Senghor jàppante na fi ak euh, président Dia ñu dóor fi ay bal. Mamadou Dia Sénégal mhm. d'accord. <laughs> un dragon rey na fi un certain étudiant professeur Diop mais taxul bu ah amay sëriñ yi doon wax ne bu leen dem ci ay manifestation ko dee xaw ma lan mais taxul c'est vrai chaque jour bu ñu ko gën a wax xale xale yi di gën a bari donc Sénégal am na lu nekk seen deret loo xam ne <laughs> bañ bañ la. léegi est-ce que mën comparer. moo tax c'est pour euh, boobu nga doon wax. a yi ñu fi dugal yëpp article cinquante deux de la constitution. affaire yi ñu fi dugal yëpp na lu waaw euh, mais est-ce que mën ko euh, comparer Macky Sall ak l'ancien président bu bu Côte d'Ivoire. Gbagbo est-ce que mën nañu. on l'a échappé belle de. ñu ñu ñu fa ñu. ñu dee on l'a échappé belle. ñu dee Côte d'Ivoire. parce que woon côté Union européenne nañu woon côté te babbo kan moo ko sumi kan moo ko fekk ci biir lalam ak sous-vêtement kan moo ko ay soldats ivoiriens lañu est que ay soldats ivoiriens ñoo ko fekk ci biir gërëm daal di ko mënatee yóbbu ko. Hmm. ay lan lañu soldats yi lan lañu woon les jeunes la soldats yi arrêté <laughs> boobu ñan lañu woon ay français lañu woon. waaw waay. da ngeen fàtte <laughs> non Sénégal. la géopolitique defe naa il faut ngeen dugaat ci de géopolitique xam nga mooy géopolitique <laughs> ñun ñu ngi nii di kaas ba léegi France yaa ngi fi base MBS militaire. ah oui France yaa ngi fi France ah. pense pas donc ak Diomaye nee nañu mais taxul ñu ngi fi. ñu de waaw mais réew mi réewum Sénégal dafa nekk réew mu ñu bëgg. parce que <laughs> am na pétrole am na gaz am na ay. am na ay ñu leen fi nekkal seen bopp lañ fi nekkal. suñu pétrole lañ fi nekkal dëgg dëgg la am ñoom seen intérêt dañuy défendre. dafa benn réunion lañu def international européen ñu réunir ñu ne nu ñuy partagé nu ñuy partagé yeneen pays. Mm-hmm. Angleterre dëkk bu libéral la. les Malouines bi Malouines yi bëgg a jëlee indépendance lu ñu def hein les anglais. day Moussa doo ko laal. boo jëloon muus di ko dóor ci biir euh, place Londres. à la place de Londres yow la ñuy tëj. ku am esprit boobu. nooy demee Malouine di dóor waa Malouine di leen rey pour que. pour que Malines reste anglais pourquoi pourquoi il y a encore des colonies dans le monde France bi lay wax le pays de la nu mu tudd le pays de la liberté et de mm-hmm. nu mu tudd sax les seen motifs yi le pays universel de la liberté mm-hmm. Mm-hmm. Nouvelle-Calédonie ak ñu ñaati colonie la am ba léegi Guadeloupe animu Antilles animu Guyane animu ñooñu am nañu liberté sont colonisés c'est pas possible. moo tax ma euh, ci ñëwaat ci élection législative yi euh, léegi daa gis nañ ne coalition PASTEF mooy génn Ousmane Sonko.